dajale ay ngànnaay yëpp taaj ko ci digg bi. maam Rafaar oo nañ ko ci benn néeg dajale ay ngànnaay teg ko ci digg bi. ne ko bàyyee ñu suñ jàtt ji. ne ko bàyyee ñu suñ jàtt ji. xam nañ ne sa jàtt bàyyi la. xam nañ ne sa jàtt waaye bàyyee ñu ko ñun ñu bay ko. bàyyee ñu ko ñun ñu bay ko yomb sax mayuñ la ko pour nga bay ko di ko lekk yaa sa doom bi. yomb sax mayuñ la ko pour nga bay ko di ko lekk. soo tàkkoolee nga ne waaw. boo d'accord nga ne waaw. soo d'accord nga ne déet. boo d'accord nga ne déet. ñu ngi nii wër la. ñu ngi nii wër la. ak suñuy ngànnaay Maodo Fall mu ne ma. Maodo Fall wax sama yaay ne ko. ma ne leen ba tey laalu leen sama ñetti tool yi man Ibra Fall. mu wax leen ne leen ndeke yéen ba tey laalu leen sama ñetti tool yi man Ibra Fall. ñu ne ko ban ñetti tool nga am. ñu ko ban ñetti tool nga mu ne ñaari ñetti tool rek laa am man Ibra Fall. mu ne leen ñetti tool rek laa am man Ibra Fall. te danaa ko bay ba du booy. te danaa ko bay ba du booy. première bi. première bi. mooy bëgg bàyyi ñett ci sama xol bi. mooy bëgg bàyyi ñett ci sama xol bi. danaa ko bay ba du dana danaa ko bay ba du booy. ñaareel bi. ñaareel bi mooy suma kaamil bi. mooy suma kaamil bi. bu ma xëyee danaa ko ubbi. bu ma xëyee danaa ko. ba bi sooma de ko jàng. ba jant bi sooma de ko jàng. ma soog ko ma doog ko. ba guddi ma ubbi. ba guddi ma ubbi. danaa ko bay ba du booy man. danaa ko bay ba du booy man. ñetteel bi. ñetteel bi. mooy ajjuma ji jot. mooy ajjuma ji jot. danaa jullee ji fajar ci jumaay baay. danaa jullee ji fajar ci jumaay baay. siyaare baay. siyaare baay. siyaare njabootu baay. siyaare njabootu baay. julli fa ajjuma. julli fa ajjuma. xadara fa juma. xadara fa juma. julli gée. julli gée. julli timis. julli timis. del si waat ci suma néeg bi. del si waat ci suma man Ibra Fall yi ñetti tool yi ñetti tool laa xam. ko bay ba du booy. te danaa ko bay ba du booy. nee na woon te néeg fa yor ñun ne woon seen néeg ba yëpp ne kaxal noppi ba mu yàgg. noppi ba mu yàgg. ne ko ñoom ñooy tool yooyu kay amuñ ci soxla. ñu ne ko tool yooyu de ñun amuñ ci soxla. suuf si rek lañ am si soxla. kon wëccee nga ni ko. kon wëccee soxla demal. sa tool yi ñun amuñ ci soxla demal. sama maam mu ne ma mën a bëri jóg. maam Seex wax ko ne ko mën a bëri jóg. mu ne ma ba may dem. fekk wax na ko ne ba muy dem. ñi tane ci suma njaboot bi. ñi tane ci njabootam bi. ne leen bàyyi taxawal ñu gunge la. wax nañ ko ne ko bàyyi taxawal ñu gunge. ndax ci tey noon nga jëm. ndax ci tey noon nga jëm. mu ne man Ibra Fall bu ma kenn gunge. mu wax leen ne leen man Ibra Fall bu ma kenn gunge. bu ma jëm maa ngi ànd ak bàyyi. bu ma jëm man maa ngi ànd ak bàyyi. toog leen. toog a mu ne ba ma a bërëb jóg bay génn néeg bi laa xool fu ma xool dawal suma la xool dawal bëtam fu ma xool gis a téye jaasi wala yet wala sémmiñ wala ngànnaay fu mu xool gis ku téye jaasi wala yet wala sémmiñ wala ngànnaay maam mu ne ma génn dem suma néeg maam teex mu ne mu génn dem maam mu ne ma taxoo loola maam teex nee na mu taxoo loola ba ba a sama sama ba bay li wër sàkketam bi ma toog ak suma njaboot rek maam teex nee na mu toog ak njabootam rek mu ne ba loolu jot dolli jëf faal njëge yaaram faal njëge yaaram mi yàlla faale faal mi yàlla faale wallahi li ku koy fontoo da nga koo xamul suma yaay mu ne ku koy fontoo da nga koo xamul biñ ne loolu jot na suma maam Ibra Faal mu ne biñ ne loolu jot na maam teer ne ma man Ibra Faal ne ko man Ibra Faal suma maam daf ma doon jàngal di ma yar mu ne maam teer daf ko doon jàngal te di ko yar ma yar ak taalibe di ko yar ci ak a. di ma yar ci baay di ma jox taarix ci baay comme ni yonent bi sallallahu alayhi ni ci baay doon joxee taarix. di ko yar ci baay di ko jox ay taarix ci baay comme ni ñu koy joxee. nii noonu la ma ko maay rafet daan di xale. nii la ko maam di rafet. ma maam daf ko bi teg ko ne maam Seex daf ko ko doon def ba jël loxo Seexu Tijaanam bi teg ko ci mbaggam. ñama bi loolu jotee. maam Seex waxoon na ko bi loolu jotee. mboolem ku toogoon di borom kër seen néeg booba. mu ne mboolem ku toogoon di borom kër seen néeg booba. yore ngànnaay. yore ngànnaay. ma maam nee ma. maam Cheikh wax ne ko ne ko. man Ibra Fall. man Ibra Fall. jël naa sama tànkam joor bi. jël naa sama tànkam ndeyjoor bi. dëgg ko ci sa bàmmeel. dëgg ko ci sa bàmmeel. ci sa dox. ci sa dox ci sa bàmmeel. ci sa bàmmeel. nee na ba tey ñoom ñëpp ku ci nekk la nga bayoon lekkoon. ñooñu ñooñu kenn ku ci nekk la nga bayoon lekkoon. sama maamam mooy waxal. mu ne maam seexam koy waxal. foofu rek damaa dal di muuñ. mu ne foofu moom dafa dal di muuñ. ne ko maam. ne ko maam. boobu dañoo xamul ne yaay lolli. boobu dañoo xamul ne yow yaay lolli. xamul ne boobu yow yaay Seexu Tijaan. dañoo xamul boobu ne yow yaay Seexu Tijaan. ah. wax <laughs> dëgg yàlla. wax dëgg yàlla eh, loolu yëpp dama bokk ci. mu ne loolu yëpp dafa bokk. am na xamoon ne kon lañ bay duñ ko lekk ni kon duñ ko aaye suuf si. mu ne buñ xamoon ne lañ bay ñoom duñ ko lekk ni kon duñ ko aaye. amul kenn ku ca lekk mboq wala dugub wala yow wala lañ bayoon kenn lekk ci dara. mu ne amul kenn ci ñoom ku ca lekk dara ci loo bayoon. moo baax sama maara Fall mu ne jël naa sama tànkam day joor bi man Ibra Fall dëgg ko ci seen dox ci seen bàmmeel maam Seya wax na ko ne ko jël na tànkam day jooram bi dëgg ko ci moo tax ah. moo tax mu ne kooku ku ko xamul moo koy waaye te laajoon Ibou Diouf. waaye te laajoon Ibou Diouf. dëkk suma maam yenduwaan. dëkk bu maam Seex yenduwaan. bu yéen a ko wëli see téere mi yéen a lew wa maam Seex bu yéen a ko wëli see téere fi lay yendu. bu ñu yootalee Ibou Diouf ko sargal ba duñ ko mottali. sargal ba moom duñ ko moom yenuwaat na rek génn dem. moom yenuwaat ay bagages. muy guddi muy bëccëg muy guddi wala muy bëccëg. benn bis mu def ko. benn bis mu def ko. dem ci benn dëkk. dem ci benn dëkk. ba ma xëy tere ñu ne ko ah ah yow de tey fa tey nga koy Europe kay tubaarkàlla tey kay moom kontaan nañ te yàlla quoi ñu ne si war a bokk fan. ba muy yegg si rek ñu ne ko ah tey de kontaan nañ tey fa tey nga koy Europe. mu ne kon mu ngi ci dëkk bi kon. mu ne leen kon mu ngi ci dëkk bi kon. mu ne kon jërëjëf ngeen jërëjëf. mu ne leen kon ñàkk ngeen jàmm man moom. kenn wane soo rek daal di génn ah. kenn wane wane soo moom daal. am ko jóg moom it daw da ko gunge. am ko jóg moom it dafa gunge waaye sëriñ bi lan la lu xew sëriñ bi sëriñ bi wan ma lu xew am su jóg di ko gunge sëriñ bi wax ma lu xew. ba yegg ba ca xàll wa mi ngi leer naññe. ba ñu yegg ba ca xàll. ci weer bi toll noonu leer ci digg àll bi ci xàll bi. ci weer bi toll noonu leer ci digg àll bi ci xàll bi. ñu xool benn caxaa boo xam ne mi ngi jóge koo ci sow. mu ngi xool benn caxaa boo xam ne mu ngi jóge koo ci sow. ci mu weex tàll. ci mu weex tàll. jëm penku jëm penku. ba mu ne sew rek. ba mu ne sew Ibou Diouf ne yoot mbubbam waa ji. Ibou Diouf ne yoot mbubbam waa ji. ko ba ci digg xàll bi. xacc ko ba ci digg xàll ba ci ron gi gis. ba ci ron gi mu bëgg doqal waa ji sukk. mu bëgg doqal waa ji sukk. nëbbatu foofu picc ma. nëbbatu foofu picc ma. waa ji dellu jógaam na ko ah Ibou Diouf la xewal. waa ji jógaam na ko ah Ibou Diouf la. yow maa yow rek a nekk ñu xàll. mu ne ko yow maa yow rek a nekk. yow la ci ma nii di làqatoo man ci ngege. nga ci ma nii di làqatoo man ci ngege. mu ne ko noppil. mu ne ko noppil. ñu dem ba ci kanam tuuti. ñu dem ba ci kanam tuuti. mu téye ko ne ko xaaral ma baaxee la. mu téye ko ne ko xaaral ma baaxee la. gis nga bi ma lay takk ci digg xàll yi. gis nga ba ma lay takk ci digg xàll yi. booba Ibra Faal. booba Ibra Faal. moo demoon ca fële. moo demoon ca fële. am mu ko jëlee woon. am di ko yóbbu fële. di ko yóbbu bu ñu fekkoon ci kaw xàll bu ñu fekkoon ci kaw xàll yi. ñun duñ doye. ñun duñ doye ñun jëloon <laughs> bi ñun soxla ko ay raadu yóbbaale. moo tax wa Ibrahima wa Ibrahima wa xalilullahi wa kóoti wa kóota. moo tax wa Ibrahima wa Ibrahima wa xalilullahi wa kóoti wa kóota. suuf rek barke. mu ne suuf rek barke. dañ dem bam danañ dem bam seer na xaalam bi danañ dema dema dem ba fi mu jóge ko woon fi mu cosaanoo woon mu ne xaalam bi danañ dema dema dema dem ba fi mu jógee ko woon fi mu cosaanoo woon foofu lay delluwaat foofu lay delluwaat xuntu ba ci xuntu ba waaye nag seegoo eeguñ foofu nag mu ne waaye egg seeguñ foofu nag moo tax ku nekk dana kaala wu oote mu ne moo tax ku nekk dana kaala wu oote waaye du benn de mu ne waaye du benn de ci jamono am na jaami yàlla yoo xam ne